Thank you. gàmmu 2019 ñu ci ànd ak yéen di leen ziar Sénégal ni mu leen ko diggee woon bi burd bi ubbee ba léegi démb ci njaxantal bi ñu ànd ci ak yéen ay plateau lañ fi doon def spécial yu amul fenn ak it li nga xam ni mooy ay reportage ñu ngi fi nag ci kër gu mag ku wax kër gu mag xam ne teenu agiment si fi la nekk te képp ku ñëw gàmmu si di nga ñëw ziar si ko wala yit nga barkeelu fi moo tax ñu daal di fi ñëw it xool lan moo waral képp ku ñëw Tiwaawan rek ñëw fii ci teen bu sell bi daal di ci barkeelu waa ten bi nag fa tabaarakallaahu Cheikh Seydi Hadji Malick mi nga xam ni moom moo ñu woo ci guddi gu sell bi moom moo ko gasaloon boppam amoon na nag diir boo xamante ne tëjoon na waaye ci ndigalu Cheikh Seydi Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallaahu taala anhu ci lañ ko gasaat dal di commencé di ci maye ndox. xanaa am yaakaar ak kontaan rek ndax ma Abdou ñëpp ko bëggoon dañ ko fonkoon ba lépp lu mu def rek dañ koy fonk. di si taasu barke yàlla ma ñu julli ñu gàmmu nag ni déwén déwén yu bare bare te yàlla bu mu ne suñu mujj gàmmu kontaan nañu trop macha allah. waaw loolu nag ñun ñi sax daf ñuy xaw a jaaxal ah, parce que nit ñi ni ñuy ñëwee doo xam lu leen andi waaye koo wax mu ne la ah ba ma ba mu ko fii jëlee woon yéene woon naa ci nàngam waaye fa tabaarakallaa yàlla defal na ma ci sutura moo xam ci wàllu wérgu yaram la ak leneen ñoom daal ñoo xam secret bi ci nekk dëgg lii mooy première fois mais lu ma yëg sama yaram yàlla rek a ko xam. lan nga yëg. dama yëg sentir bu rëy sama yaram da doon metti mais fu mu dara metti wu ma ngir dal da borom bu nekk tëdd fii maa ngi ñaan yàlla képp ku fi ñëw li ngay ut yàlla na ko yàlla yombale yéen mii tamit ñu ñëw yal neen yàlla yokkal seen dawla bi yal na yàlla sàmm leen sàmm jaboot ji yëpp ci barki rasulullah ak borom ba tëdd bu tëdd fii. nag gàmmu gi kontaan nañ trop. jóge Kolda ba fi ñëw ba Tiwaawoon di ziar si waa Tiwaawoon di ñëw wut si ñaan di ñëw tamit màggal guddi bi nga xam ne mooy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun waa Kolda ñëw nañ ak doole kontaan nañ trop te di dañoo ngi ñaan yàlla yàlla yokkal ñu déwén mu ëpp ren ci barki nabi Mustafa déwén bu bu naree ñaaw yàlla na mel ni déwén yàlla na mel ni ren ci barke Yonent bi ci barke Seydil Xaaji Malick ci barke Maam Abdou ci barke sëñ Babacar si ñun nag kontaan nañ trop ñun daayira bi mooy daayira baaba Babacar si waaw liggéey bi fii nag dañ ko organiser bu baax macha allah parce que fii mooy kër gu mag kër Seydi Hadji Malick te xalif bi Serigne Babacar si Mansour lu bari buy dem ci cérémonie yi wala si burdu bi fii lay jaar kon dafay laaj organisation moo tax bëccëg bi nii la ñuy tijji de huit heures à vingt mais bu waree ñëw euh, arrêté approvisionnement bi en eau daal di nettoyer cour bi de manière très propre comme ça xalif bi mën a jàll ñu ngi xëy fii de huit heures à bon ñu ngi arrêté heure de prière ñenn ñi dem julli ñeneen ñi ñëwaat noonu la ñuy fonctionner quoi. message booy lancé ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers Sénégal ci gàmmu 2019. waaw xanaa di ñaan rek euh, yàlla dolli jàmm ak sutura si gàmmu gi ñi ñëwoon ñëpp yàlla. andi leen ñu agsi nañ si jàmm yàlla nañ fi nekk si jàmm gàmmu gi agsi tam si jàmm ñu ñaan rek bu ñu ñëwee ñu gën a dolli yar gën a dolli xorma ci lieu saint yi maanaam zawiya yi xabru yi ak yooyu yëpp comme ñu ko kilifa yi jàngalee rek macha allah. jërëjëf ay ngi leen jaajëfal